asalaamu aleykum ngeen baal ñu àq ci jatay yeeg coono yeeg yépp tabarkalla barkeel te mu yàgg mu mel ni itam ci niñ ko daan waxe mel ni ñun ñépp taalibe yonent bi lañu sallallahu alayhi wa itam rekk yaram yi diis na soxla yi bare na wante li mu daj du nu ko daj kon nag di ñaan ci barkeem rekk yàlla dinu may wër di leen may wér di leen defal leer di nu defal leer ah guddi la goo xam ni guddi barke la xëy na bu dee bidaa itam turu yàlla moom du bidaa bu dee bidaa itam julli ci yonent bi du bidaa xëy na ci biddaa dee am cadre bi lay doon ba tax na kon dajeeti nañ fi ren yal nañ fi daje ndëgë ni dëwën te fekkit yàlla faj soxla yëpp yàlla wéral yaram yëpp fa tabaarakallaahu ah xanaa su ca kanamee nu waxtaan ak yéen waaye rekk ñu dem ci liggéey bi dafa mel na at yi paase dañu doon tudd ay maamam moom yonent bi ñuy tudd ay maamam xëy na am na ñoo xam ni sax jotoon nañ ma bind doon wax ni te ñuy tàmbalee ci moom waaye fekk na ni nu defe noonu rekk la tey nag benn maamam bu ñuy wax kilaab kilaab murrata kaabin wallu ay وغالب وفهر ومالك نضر الكرم مملنا خونا دوي وار نخ كلاب موي خاج يو باري أه maamu yonent bi naka lañ koy tudde xaj kilab di xaj yu bare wala mu jóge ci mukalaba ndax itam dafa am du équipe bu football ngi fi ñu tudde ko Lyon ma ne teewul ñu ne kay nit waxin la ñu jëkk ñi dañ ko daan def dañu daan def di tudde seen giir turu rab wante bu rab wa amee jikko safaan te fekk ne itam am na jikko ju baax ñoom dootuñu seet jikko safaan ba jikko ju baax ji rekk lañuy seet moo tax nga fekk kilifa nga di ko melal ci xaj ante كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب فكلو دينا امير المؤمنين نلا تاغ ماغا نيكو ياك خاجا نيرو تي سام ولري loolu dañ ko daan jëfandikoo am na giir yoo xam ni saalab lañ leen tuddee am ci giir yoo xam ni yarboo lañ leen tuddee am ci giir yoo xam ni zi'b walla zu'ayb lañ leen tuddee am ci giir yoo xam ni al asad lañ leen tudde wante maamam bii nag turu kilaab bi du turam mi ngi tudd urwatu bnu murra wante ku bëggoon rëbb la te def ci daan ànd ak xaj yu bare daan nañ ko dàkkantele xakiim ndax waxtaanam dafa bari woon njëriñ li tax nag ñuy tudd maamam maamam maamam maamam mooy la góor gi moor Saasum doomu qaadi ma jaxate kal waxoon ca Ndar laqad kuntu qabla al yawmi asma'u أنما جدودك قد كانوا أطايب مئزرا مئزر موي الإزار dañu daan tagge nit ni làmbaayam dafa set booba tubay xewul booba ñépp dañuy làmbaayu tubay xewul bu ñu la bëggee tagg ñu ni sa làmbaay set na yonent bi nag maamam yépp seen làmbaay set na li ci suñu boroom jublu mooy li ngeen di wax ni cin bu nare neex bu ba xeeñ ne yàlla mënoon na xëy xëy defaral ko boppam waaye dale ko ca maamam yu jëkk ya di defar di defar di defar di defar tabarkàlla jëm si ci moom rekk ndax itam dañu nekk ci aalam boo xam ne aalamul asbaab la fa nu jóge bu nu fa nekkoon yàlla du soxla di wut sabab fa nu nekkoon dafa am fu nu nekkoon waaw léeg-léeg nga wéet yëg loo xamul léeg-léeg nga wéet xalaat loo xamul booba fekk na sa ruux mooy fàttaliku fa mu jóge waaye fii nag lu mu lu manti doon yàlla daf koy wutal sabab moo tax mu jaarale yonent bi foofu benn par benn benn par benn benn par benn ku ñëw gën a sell sa morom ku ñëw gën a baax sa moroom ba agsi ci moom su ko defee arab bokk na ci seen jikko jël giir tudde ko kundu jël giir tudde ko kundu kundu rab la moom la arab yi di wax taalam wax nañ ni ku fiir la ata wolof yi di wax yaa fiir na kundu ku fiiree waa këram la soxnaam ak i doomam daf leen di fiire kenn du leen laal moo tax ñuy fekk nit ku baax ku aar njabootam ñu tudde ko saalab wante am na beneen côté caay-caay boobu taxul ñu di ko tudde kenn léeg-léeg ñu tuddee giir yar boo moom laa xamul nu ko wolof yi tudde yar boo yéen ñi dégg wolof na mu tudd jaar la tudd waaw buy tëbe ci garab dal ca garab ba ca des moom na mu tudd mooy xoju waa li tubaab tuddee gerboise mooy lan moom moo ci ban mu mel ni itam wàllu équilibre moo tax ñu di ko tudde nit walla ñu di ko tudde giir ndax di tëbe ci garab dal ca ba ca des te doo daanu fa la yitte yem boroom kër bu yàlla jox yitte bu toll noonu jox na la équilibre te dund bu ca équilibre amul jaratu ko ndax dañu jaarale ci lu ñuy tudde yoon bu nekk ci digg bi bañ a jaar fii bañ a jaar fële ummatan wasatan wante wàllu rab yi lu am solo la moo tax yàlla wax ci alquran ni ay nation lañu comme yéen te loolu mel na ni dafa bëgg ku ci bàyyi xel dafa xaw mel na bésu bésu xat-xat la xam nga soo demee ci alquran yàlla tudd na fa xaj bu yiw ndax boroomam muy xaj bi àndoon ak asxaabul kaaf يلا تدنا شي القران اتم حجب كاتشر ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ما تخكنك كلا يرنغا نيرو su ko defee wund itam ñëw xam naa Alaaji Mbóoj bu ñu ma romb kër gis ñu bind ca buntu ba chien méchant mu ni ma du xaj bi boroom kër gi la ni ko ah, affaire la de mu mel ni kon maamam bi ñuy wax kilaab xëy na daje ci moom mooy ku bëggoon rëbb la te ku daan ànd ak ay xaj yu bare la sudee rëbb te loolu itam dafa mel ni màndarga njàmbar la ndax rëbbkat bu dëgërul fit amul rëbbkat yépp dañu dëgër fit tabarkal la seen xaj yi itam dañu dëgër fit waaye espèce su dàkkental la nag terewul am na ci yonent yi kenn ku daan wax doomam li ko del seetlu jikko rab yi daa dana la yokk xam-xam te dana la yokk jikko boo leen dee boo leen dee seetlu looloo ngi ci seen biir wér ki démb rekk laa ciy waxtaan ak seen patron ni ma man daal dafa am lu ma jaaxal ma ni ko lan la mu ni ma rab yaa ngi gën a nit ñiy gën a ma ni ko dafa dikk pexe amu ci ba tax na ëpp dañoo xepp am na ñu wax sax ni ñu mbokk asiatique yi am na xeex bu leen yàlla mën loo nga xam ni bu ñu ko dee xeex wala ñoo bàyyi ka ñoo xeexal rekk dañu ko sonal wax nañ ni ñu ngi ko jële ci benn rab bu tuuti xawma wolof yi gëleemu mbëtt lañ ko tuddeeti wala gëleemu maam yàlla wala am na nuñ ko tudde de arab yi am na ñu nuñ koy dàkkantale bu dee bi nga xam ni boo ko gisee fokk ca bëccëg ba nga dégg lu la naqadi te mooy bi amee couleur bi mel ni matt ñu di ko tudde xasaanu ibliis ñaare dañu ni boo ko gisee moom foog nga dégg safaan walla bu wert bu rafet bi ñu ni boo xëyee gis ko dégg lu la neex ca bëccëg ba moom la ñuy wax farasu rasul waaye turam dëgg-dëgg ci arab mooy suruufa defe naa tubaab yi ñoom mante religieuse lañ koy wax mu mel ni rab yi ëpp nañoo xepp ndax comme nit mëtatul nit foog mu war a fonk rab am na léeb bu nga xam ni dañ ni gànnaar la jóge wante mel na ni ci jamono yont yàlla yusuf la woon nee ñu mbokk ma dafa jóge gànnaar ñëw ñu ni ko ndax wund am na fa mu ni waaw waaye boppam la fa nekkal mu mel ni dafa junju égoïsme bi ci wund waaw ku bëgg boppam la daani ki boppam rekk ko yitteel waaye ñaawalu ko nag moo tax lenn philosophe wax ni d'accord nañ ci égoïsme moom ndax égoïsme bu confortable la maanaam dafa yiw égoïsme bu yiwa di moo bon ba moo tax yonent bi wax na ni am na benn jigéen àtte nañ ko moom ba noppi ba teg dossier moom bu ñuy ubbi jahannama mu di ca dugg ndax dafa sàggane woon wundam wax nañ ni itam dajeeg wund wu feebar moo gën a yomb dajeeg wund wu màggat ndax dundinam moo tax dafa xam na moo dunde su dee lekk du ko gaawantoo dafa lekke sago bu baax nag su noppee itam nga gis ko mu fudd ba mu wóor ko ni li dugg moom tëdd na na mu wara a tëdde bu ko defee mu set fu sedd te nooy mu tëdd fa nelaw su yeewoo fudd wa ñëw ba ci yow la mu lay sante mooy ngaraay ko lépp ci moom lay dell yow moom yaay jaam bi wate am na fi at yoo xam ni dafa am benn jigéen bu feeñ fële ca Europe de l'Est defe naa la sax mag ñu bari daan fi jóge fii ci Sénégal di ko fekk nee ñu dafa am piqûre bu mu leen di piqûre pour ñu nekkaat ndaw te ñu ni piqûre ba ci yóoru wund la ko jële ñu bare daan nañ fa dem di ko seeti ay kilifa sax yàlla xam na ko bëgg dund rek gis naa ci kenn ma waxtaan ceeg moom mu ni ma affaire la de axet li mu la defal su la ko defalee ba noppi bu kàttan ba jeexee rek nga gën sonnati waaye terewul at mu jot ñépp jëkkante ndeysaan ba faf moom moo faatu mu mel ni kon rab yi li ci yàlla wax ne ay nation lañu comme ñun ñu mata yaru ak ñoom lañu ci façon bu ñu nu dul lore ci façon bu ñu nu dul lore ba tax yonent bi daan wax na ngeen di fo ak ñett fo sax tere nañu ko wante na ngeen di fo ak ñett na ngeen di fo ak fasu jihaad ndax budul moom mu ñaaw te yëg na ni mook yow a bokk cause yëg na ko xam na ko moo tax soo ko waree ba àgg ca xare ba loo def benn mu def ñaaram te bi daan wax ni di leen fo ak fasu jihaad di ko sang di ko raay léeg nga teg sa lex sax ci lexam pour mu yëg ni yëg nga ni mi ngi fi daan na wax ni di leen fo ak liir waaw ñàkk fo ak liir ci boroom kër doyadi la am na nag ñu bari tiitër ba duñu ko def wante damay yar sama doom boo ci yëgul ni sa doom yar na la lu ni toll yar ba baaxul parce nit ki ni muy yare doomam la ko doomam di yare looloo tax ñu bëgg bu sa jabar dee nàmpal sa doom nga di ko seetaan di set xale bi ni moo nàmpe ni moo sexe ween yooyu yépp dañu santaane nga di ko def mu teg ca nit di leen fo ak seen soxna am na ñoo ni rus nañu ko sa yaram wu naqadi rekk ñu rus ko lu ma wàññi te it bokk na ci njëriñu fo ak sa soxna mooy wàññi sa bëgg-bëgg ndax am na ñoo xam ni li ñu soxla ci seen soxna rekk ku ne xam na ko boo xasee paase jeex na te boobu nag yonent bi nanguwu ko ndax baaxul baaxul mukk kenn du ko def ah léegi nag moom dafa am loo xam ni dafa xew mooy li ñuy tuddee biberon dafa benn journaliste anglophone la may waxtaan ak moom ma ni ko lu tax tubaab yi li ñu def ci àdduna yëpp yëpp defar oto nga dugg ca defar avion nga dugg ca lu nekk ci àdduna def nañ ko mais boo seetloo seen jëmm da gis ni am na lu des bu ni ma xam nga loolu kañ la commencé ma ni ko amu ni ma bi xewee bu ni ma ndax ku ñu dundale meewu nag ba nga dee liir ba xëy màgg ji ko nag nga yame waaw dan lalu amul sans werante ba tax suma turandoo daan wax ni wal walidatu yurdi'an nee talab la nañu nampal nañu nampal seen doom kooku moom dañ forcer pour ñu nampal seen doom waaye itam léeg-léeg euh, jot ñàkk wante du tee ñu seet ñàkk jot gi ndax dina dàqonte nga war a mën a nàmpal sa doom waaw xam naa dafa mel na nun sunu ko caaxaanee moom caaxaanewu ko dafa ku ma mas laaj ci tugal li ma waaw jigéen ñii di fecc bàyyi seen dënn ci biti te fekk dañu àndoon seetaani pecc ma ndax ganit ka ganale moo ko yóbbu yàllaate ka ma fa yóbbu booba gën naa di ndaw booba tugal di nga dox ci mbedd yi doo gis benn nit ku ñuul yàgg na mu wax ma ma ànd ak ku nga xam ni su ma nee sama mag la muy dëgg bu ma nee sama najaay la muy dëgg ndax yàlla ak Alaaji Usmaan Kan muy ëmat géey jëmi keroog moom la àndal wax ma ci làmmiñam ni ma fas naa yéene dëkk bi yépp nga xam ko bala ngaa ñibbi waaw ah, mu ma luy ami njëriñ la ba yóbbu nu nag foo xam ne tabarkal la ay fecckat dafa nekk waaye dañoo bàyyi seen dënn noonu duñ ko sang ba ñu génnee mu ni ma waaw lii lu ci lislaam wax ma ni ko abus confiance la mu ni ma lu tax ma ni ko jigéen yàlla may na ko yaramam wante dënnam daf ko ko dénk ndax ki nara ñëw ba muy tëral ween moom sunu borom dafa wax jigéen ji ni ko hadihi amaanatun hadihi amaanatun خبأتها عندك فاحفظيها فاحفظيها إلا بحقها بوكو نتي خيري ني سونو بروم comme doom dafa bëgg mu jaar ci jigéen moo tax mu dénk ko fi dund doom ja war a nekk kooku jigéen ji moomatu ko même su fekkee ni yàlla dogal na sax gisul doom du tee ci xereñam ak wone mën-mënam mu teg fa liy deñ ci dundam te wenn ma ni ko moo tax sañu ko sañu ko wuññi te dëgg la nag dund baa nga fa ñuy xaar borom ñëw waaye bu borom ñëwul itam yàlla ngi fi waaw bu borom ñëwul itam yàlla ngi fi ah, dafa bari ñuy tawat te xamuñu ni ëpp naa def waaw ah, tawat bi moom baaxul tawat bi moom baaxul mukk dund bi nak mi ngi fi te deug la yonenti su fekke Isa ibn Maryam la wala su fekke Muhammad bnu Abdillah la alayhim asalaatu wassalaam kenn ku ne ci ñoom واخنا خاتم نكو فخلين بباري فخلين بباري يونتي بي اغنا تي دي واخني يين لاي تيترو لك لو نين غنا باريخ ما خيب waye du tax nak bëgg bëggam bobu wak xere ñu yàlla mukk yàlla rus na ko bëgg na ko waaye sunnaam ak xereñam du bàyyi kenn wàkk ko yonent yàlla ay sayit wax na ko nee na ngeen bare wante amul woon soxna benn bóllëreem waxoon nag ko ni ko duñ la wutal soxna mu ni ko lu ma ko doye mu ni ko nga am ci takkandeer mu ni ko pour lan mu màgg xeex ak man walla mu dee ci diggante bi may te mi ngi wax ni na ngeen bare pour wax la ni lañu wax lañu waaye xere ñu yàlla yàlla ko moom am seen benn taalibe bu leen ko firil firil ko ñaari yonent yépp wax ni lidu lil mawt وابنوا للخراب واي واي واي ام لين دوم ndax de am lumu dundé واي واي واي ام لين كير يو رافيت ndax rap am fumu deuk xanaa waxin la ci ni benn du ci tardé waaw waaye waaye jur leen waaye ndax ndax dee am lu mu dunde waaw tabax leen waay ndax ràpp am fu mu dëkk واخين لا واخين يرلا لا